ñaar ak juróom yuusufa ak suufeem asalaamaaleykum mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub yi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dëgtal leen seen émission yoonu njub ci li nuy benn bennal nettali yonent yàlla yi booba ba tey nu ngi jàng ci téere bi jëkk ci kàddub yàlla te ñu koy woowe tawret ci njàng mi weesu jàngoon nanu ci mbirum yonent yàlla yanqoo ba sëtu ibrahima gisoon nanu ni yàlla tuddee woon yanqooba tur wu bees di israel yanqooba mu ngi tekki naxkat wante israel dafay tekki ki nara nguuru ak yàlla léegi yanqooba amoon na ñaari tur yanqooba ak israel israel mooy turu xeet wu bees wi yàlla dige woon def ko ci askanu ibrahima isaaxa ak yanqooba yanqooba moom amoon na fukki doom yu góor ak ñaar ci fukki doom ak ñaar yooyu la bànn Israël soqi ko di xeet wi nga xam ne ci la ramukat bi naroon a jóge ndax xam ngeen turi fukki doomi yanqooba ak ñaar ñooñu ñoo di ruben simeyon lewi yuda sabulon isakar dan gad aser neftali yuusufa ak bensamen tey jii nag fas nanu yéene tàmbali jàng nettali bu doy waar ci mbirum doomi yanqoba yi rawatina ki tudd yuusufa doon fukkeelu doom ji ak benn léegi kon nanu dugg ci nettalib yuusufa bu neex bi nu ngi jàng ci tawreet téereb njalben ga ci saar fanweer ak juróom ñaar mbind mi lii mooy nettali bi jëm ci askanu yanqoba yuusufa nekkoon na waxambaane wu fukki at ak juróom ñaar di sàmm jur gu gàtt ga moom ak i magam te yuusufa nettali baayam lu ñaaw la magam ya di def fekk cofeelu yanqoba ci yuusufa la gën a fese ci biir doomam yépp ndax li mu ko jur bi mu yëg ak magam noonu mu ràbbulul ko mbubb mu yiw mag yi gis nag ne seen baay yuusufa la gën a bëgg ci ay doomam kon ñu daldi ko bañ ba mënatuñu seq ak moom benn baat bu rafet am bés yuusufa gént nettali ko ay magam ba tax ñu gënati koo bañ mu ne leen déglu leen li ma gént danoo nekkoon ca tool ya di góob ba nu takkee sama takk daldi jóg taxaw te seeni takk daldi ko wër di ko sujootal magee nag ne ko xanaa dangay bëgg a falu ci sunu kaw wala boog danga nar a nekk sunu sang noonu ñu gënati koo bañ ndax ay géntam ak i waxam la ca tegu geneen gént dikkal ko mu nettali ko ay magam ne leen déglu leen lii ma géntaat jant bi weer wi ak fukki biddéew ak benn ne jonn di ma sujjootal noonu mu nettali ko baayam ak i magam waaye baayam yedd ko naan luy gént googu nga def ndax man ak sa yaay ak say mag dina nu la raamal si noonu mag yi daldi ko ñee waaye baayam denc ci xolam li mu nettali am bés nag ay magam dem ca réewu sisem sàmmi seen jurub baay boobu israel ne yusufa xam nga ne sa mag yi sàmmi nañu sisem kaay nag ma yónne la ci ñoom yusufa tontu ne waaw jekk na yanqoo ba ko demal seeti say mag ba xam ndax ñu ngi ci jàmm ñoom ak jur te ñëw nettali ma ko noonu yuusufa daldi toppi ay magam fekki leen ca dotan bi ko mag ya séenee fu sore te laata mu agsi ci ñoom ñu mànkoo ngir rey ko te waxante naan boroom gént gaa nga na la di ñëw léegi nag nanu ko rey ba noppi sànni ko ci biir benn ci teen yi bu ko defee nu ne rab wu soxor fàdd na ko kon fu muy mujj moom ak géntam noonu ruben dégg ko jéem ko musal ci seeni loxo mu ne bu nu gàddu bakkanam teg ca ne leen bu leen tuur derek sànni leen ko ci teen bii ci àll bi waaye bu ko loxo dal mu wax leen noonu ngir bëgg ko musal ci seeni loxo delloo ko baayam bi yuusufa agsee ba ci magam yi nag ñu daldi futti mbubbam te muy mbubb mu yiw mamu sol ñu jël ko sànni ci biir teen ba fekk teen ba dëy ba wow koŋ ba noppi ñu toog di lekk noonu ñu siggi xool gis njëggum giléem mu bànni Ismaël sëf daakaande ak cuuraayu ndàbb ak mbéb ñu jële ko ci réewum galaat jëme ko Misira ci kaw loolu yu daane ay doomi baayam bu nu reyee sunu rakk ji te nëbb tam lu nu ci jële te nu ko jaay waa giiru Ismaayil te bu ko sunu loxo dal ndax sunu rakk la di sunu suux doomu baay yi déggal ko kon nag bi julay giiru madiyaan yi jaar ñu xëcc yuusufa génne ko ca teen ba jaay yuusufa waa bànni Ismaayil ci ñaar fukki tojiti xaalis noonu ñu yóbbu ko Misira bi nga xamee ne Ruben dellu na ca teen ba mu gis ne yuusufa nekkatul ci biir mu mettitlu ko ba daldi xotti ay yéreem mu jóge ca dem ca ay rakkam ne xale ba nekkatu fa man nag fu ma jëm léegi noonu ñu jël mbubb mbubbum yuusufa di aw bëy taqal deret ja ca mbubb ma bi ñu ko defee ñu yot mbubb mu yiw ma seen baay ne ko mbubb mii de lanu gis seet ko ba xam ndax sa mbubb doom la am déet bi ñu waxee ba noppi yanqooba xool ko ne leen sama mbubbu doom la rab wu soxor yàpp na ko xanaa kay daggate nañu yuusufa booba yanqooba metit lu ko ba xotte ay yéreem daldi taraxlaayoo ab saaku te jooy doomam bés yu bare ay doomam yu góor ak yu jigéen ak jabari doomam ñëw di ko dëfal waaye nanguwu ko mu ne damay jooy ba dugg ca bàmmeel noonu baayam jooy na ko noonu nag jaaykat yi yóbbu yuusufa misra te potifaar jawriñu na di njiitul wattukati buur jënd ko ci bànni ismael ñi ko indi woon waaye aji sax ji ànd ak yuusufa muy ku barkeel te mu dëkk ca kër sangam noonu sang ba gis ne aji sax jaa ngi ànd ak moom di ko barkeel ci lépp lu muy sabablu yusufa nag am cofeel ci kanamam ba mu def ko surgab boppam te mujj fal ko bëkk néeg dénk ko lépp lu mu moom ba mu ko falee bëkk néeg nag dénk ko lépp lu mu moom la dale ca bés booba aji sax ji di barkeel waayu misra ji ndax yusufa te barkeb aji sax ji di wàcc ci léppam muy kër mbaa tool mu bàyyi lépp ci loxo yuusufa ba toppatootul dara ci li mu am lu dul dund bi muy lekk fekk booba nag yuusufa jekk bind te góor a yiw am bés nag gannaaw loolu jabaru sangam xemem yuusufa ba ne ko kaay tëdd man waaye yuusufa bañ ne jabaru sang ba déglul sama sang jébbal na ma lépp ba toppatootul dara ci kër gi amul kenn ku ma sut ci kër gi aaye aayewu ma dara lu dul yow ndax li ngay soxnaam kon nag nu ma mën a defe bàkkaar bu mag boobu ba tooñ yàlla ni noonu mu di ko wax yuusufa bés bu nekk waaye du ko déglu bay tëdd ak moom mbaa di wéet ak moom sax am bés yuusufa dugg ca kër ga nag ngir def liggéeyu bëkk néegam fekk benn jaam bu góor nekkul ci biir ndaw si daldi ko jàpp ci mbubbam ne ko kaay tëdd ak man waaye yusufa wàcc mbubb ma ca loxoom daw génn kër ga ba ndaw si gisee nag ne wacc na mbubb ma ca loxoom daw mu génn ci biti woo góori kër ga wax leen naan xool leen ebran bi sama jëkkër indi ci kër gi mu ngi nuy fontoo dafa dugg bëgg tëdd man ma daldi yuuxu ci kaw bi mu déggee nag may yuuxu mu daw génn ci biti wàcc mbubbam fi sama wet noonu ndaw si teg mbubb ma ca wetam ba sang bi ñibbisi bi mu ñibbisee mu wax ko lii jaamu Ibrahima bi nga indi fi nun de dugg na sama néeg di ma fontoo ma daldi yëkkati sama kàddu di yuuxu mu daw génn ci biti bàyyi mbubb mi fi sama wet bi sang bi déggee li ko jabar ji nettali ci ni yuusufa jëfe ak moom meram daldi fudd mu jël yuusufa tëj ko kaso fa buur di tëje ñi ko tooñ noonu yuusufa nekk fa ca kaso ba waaye aji sax ji ànd ak yuusufa jox ko cofeel gu sax ba mu am wor may wattukatu kaso ba noonu mu jébbal yuusufa ñépp ñi ñu tëj te lépp li ñu doon def ci ay loxoom lay jaar wattukat ba seetatul dara lu nekk ci loxob yusufa ndax aji sax ji ànd na ak moom te lu mu sabablu mu sotti noonu la nettalib yuusufa doomu yanqooba doore mën nañu tënk li nu gis tey ci kàddu gi yuusufa soppoon na njub te sib lu bon sonn ci kaso moo ko gënaloon muy bànneexu ab diir ci bàkkaar looloo taxoon bi ko jabaru sangam ngir mu tëdd ak moom di njaaloo yusufa bañ tontu ko naan nu ma mën a defe bàkkaar bu mag boobu ba tooñ yàlla ni yusufa xamoon na ne mënuñu boole topp yàlla ak topp bàkkaar yusufa jébbaloon na yàlla xolam bépp looloo taxoon mu sopp njub te sib lu bon ni maamam ibrahima yusufa moom itam gëmoon na li yàlla dige woon ci lu jëm ci musalkat bi waroon a gane ci àddina ngir fay boru bàkkaaru doomi aadama yi yàlla àtte na yuusufa ni ko jub ndaxte yuusufa gëmoon na kàddug yàlla gu wóor gi ci kaw ngëmam yàlla baal na yuusufa ay bàkkaaram yépp daldi fees xolam ak kàttan ngir mu mën a noot bàkkaar tey dund ci àddina su bon si ci njub yàlla àndoon na ak yuusufa ndaxte yuusufa àndoon na ak yàlla yuusufa mënul woon a ci ci bàkkaar te bëggoon na yàlla ak xolam bépp ku gëm tey jaamu yàlla ci sa biir xol di nga bëgg li yàlla bëgg bañ li yàlla bañ moom la mbind mi wax bi mu naan kenn mënula jaamoondoo ñaari sang faaw nga bañ ki bëgg ki ci des walla nga jàpp ci kenn ki xeeb ki ci des gan àndandoo mu mën a am diggante njubte ak ndëngte gan booloo moo mën a am diggante leer gi ak lëndëm gi yàlla aji leer la te genn lëndëm nekkul ci moom sunu waxee ne bokk nanu ci moom tey dox ci lëndëm gi danuy fen ci sunuy wax ak ci sunuy jëf ñi bokk ci yàlla ci dëgg-dëgg dañu gëm kàddug yàlla te di ko topp waaye ñi bokkul ci yàlla bàkkaara leen noot xëy na dañuy mbubboo diine waaye dañuy sax ci bàkkaar bàkkaara leen di noot seeni xalaat ak seeni mébéti xol ak seeni wax ak seeni jëf xëy na dinañu am yéeney noot bàkkaar waaye mënuñu ko noot ndaxte bàkkaar moo leen ëpp doole amuñu ci seen xol kàttanu xel mu sell mi yàlla may képp ku gëm kàddoom ba nangu yoonu mucc wi mu tëral yow muy déglu tey ndax yàlla yeesalaat na la ci dooleem ndax nangu nga xibaar bu baax bi jëm ci musalkat bi am kàttanu raxas sa xol ci bépp baakaar wala boog ndax yaa ngi dëkk ci nootaangeeg baakaar ba tey mbind mi nee na jegeleen yàlla mu jege leen yéen baakaarkat yi sellal leen seeni loxo yéen ñi am xel ñaar laabal leen seeni xol suufeel leen seen bopp fa kanam borom bi kon dina leen yëkkati mbokk yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ci njàng mi di ñëw ci coobarek borom bi dinanu jëm kanam ci nettalib yuusufa ba gis ni mu génne kaso yéeg ba nekk kilifak réew misra gépp su fekkee ne am ngeen ay laaj ci li nu jàng tey ngeen bindu ni ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis doon jug BP 370 yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci aaya bi nekk ci kàddoom te naan yàlla aji leer la te kenn lëndëm nekkul ci moom sunu waxee ne bokk nanu ci moom tey dox ci lëndëm gi dañuy fen ci sunuy wax ak ci sunuy jëf